déglu sëñ bi jàkk bi si waaw waaw bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala saaxiba samahati raaxiya alilmi wa ahli cheikhana mohammadin ilmuntaqa cheikhana mohammadin ilmuntaqa xalifata tariqati almuridiya حفظكم الله تعالى وأيدكم ونصركم فخامة رئيس الجمهورية السنغال السيد ماكي سال أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والموافقين لوفد فخامة السيد الرئيس أصحاب السعادة السادة السفراء وممثلي الدول الشقيقة أيها السادة العلماء والأئمة والشيوخ ممثلي الطرق الصوفية والمنظمات الإسلامية أصحاب الفضيلة الشيوخ والأئمة والأساتذة القادمين من البلدان الشقيقة أيها الضيوف الكرام أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وعونه تتحقق الرغبات وعلى توفيقه لنا هذا التوفيق أيها الحفل الكريم qabla sanawatin arbaa ijtamacna fi hada almakaan altahir liwadi xajari alasaasi li hada sarc alcilmi alkabir walyowma najtamicu min jadidin bixamdillahi taala litadshin litabda alamaliatu altadrisiyatu fih bacda injaasi aljusi alakbari min almarafiqi wa bacda icdaadi albaramiji aldirasiya wa tacyiini dufcati alula min almudarrisin wa istiqbaali alfawji alawali min talabati alcilmi على مختلف المستويات ليشرفنا صاحب الفضيلة الخليفة الشيخ محمد المنتقى بتلقين وإلقاء الدرس الأول إيدانا بانطلاق عمل هذا الصرع العلمي التربوي المنيف مجمع الشيخ أحمد الخديم للتربية وتكوين وهذه المناسبة أيها السادة الكرام تكتسي أهمية قصوى للبلد وللأمة الإسلامية بصفة عامة وللطريقة المريدية بصفة خاصة ولفضيلة شيخنا محمد المنتقى بصفة أخص فهذه مناسبة ولادة صرع علمي يخدم الجميع بنشر الخيم الإسلامية الإنسانية النبيلة ويخدم المريدية بنشر تعاليم مؤسسها السامية السنية وإحياء تراثه الرباني والعلمي الأصيل wa yujasadu asimata cheikhina mohammadin almuntaqa alqawiya ala xidmati alilmi waldiini sayran ala xuta salafihi saalih min kulli ma yanfacu alcibada walbilad ayuha alixwa in altarbiyata tucadu min muhimmati alanbiyai walmursalin alayhim alsalaam wa hiya alwazifatu alula lisayidina wa mawlana nabiyina muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam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 inna allaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annita walakin ba'athani mu'alliman wa muyassira wa lidhalika fa inna at-tarbiyata wa ta'lima huma min ad-da'a'im al-asasiyyati lit-tariqati al-muridiyya wa ahammi raka'iziha al-matina wa qad kanat عناية مولانا الشيخ أحمد الخديم رضي الله عنه بهما فائقة جلية في كل أحواله وكتاباته المباركة وخاصة في قصيدته التي ألفها xiina assasa madinatahu tuuba yad'u llaha subhanahu wa taala an yajcalaha madinata ilmin wa amalin wa axlaaqin xamida fa qaala radiallahu taala anhu wajcal binaa'iya binaa'a cilmi wa amalin bisunnatin wa xilmi wajcalhu da'ban maskana altacallumi wa mawdica alfikrati waltafahumi wa maskana alirshaadi waltaclimi wa maskana altaswibi wa tafhimi ila janibi xasaa'isa aadaa'i cheikhina alxadim radiallahu anhu لهذه الوراثة العظمى من المهمات الأنبياء عليهم السلام من تعليم وتربية خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله حتى خرج على يدي تربيته وترقيته أفواج كثيرة من أكابر العلماء العباد الصالحين لم يكن خافيا على المقربين إلى حضرته المباركة رغبته الشديدة في إقامة مدرسة بمثابة جامعة إسلامية xaadinati naashirati li kulli alulumi naafiati fi dunia wal axira li ummaha talabatu min kulli makanin lirtiwaai min manahiliha alsaafiya madrasatin takunu wasilatan naajiatan li muxaarabati aljahli walbu'si walshaqaawa fa qaala radiallahu anhu بالمصطفى لي بنى القدوس مدرسة بها يسول الأذى والجهل والكبد wa fi sabili taxqiqi hadihi alraxbati aljaliya min alcheikh ahmad alxadim radiallahu taala anhu saaa abnaauhu wa xulafaauhu alkiram maa almuridina fa ablaw balaan xasanatan xasanan fi alcinayati bilmadarisi walmajalisi altaalimiyati bilidaafati ila istihamatihim albarisa alxaalidati fi binaai alwatani wa dacmi istiqraarihi wa istitaabi amnihi wa salaamatihi bi muxtalafi alwasaili xatta wasalat alshuclatu walamaanatu ila mawlana alcheikh mohamadin almuntaqa xafidahu llahu taala wa kaana maarufan lada aljamic bi cinaayatihi alshadida bilcilmi wa ahli fa wadaca altarbiyata wa taclima fi muqadimati awlawiyaati wa baadara ila itlaaqi hada almashruc alimlaaq fa habba jamicu almuridina walmuhibina wa bathalu alnafsa wannafis fi sabili injaazihi ولم تتوقف هذه الأعمال منذ انطلاقها في ربيع الأول 1440 أي ديسمبر 2018 رغم مرور الأزمة الصحية الخانقة التي شهدها العالم حتى وصل مستوى الإنجاز اليوم بحمد الله وشكره تعالى إلى مرحلة يمكن للدراسة أن تبدأ في هذا الصرح فهذا هو اليوم يبارك سماحته بداية الأعمال الدراسية maa muwaasalati al-amali fi al-maraafiqi al-mutabaqiyati al-qaliila ayyuha al-ixwatu al-kiraam rasama ash-sheex Muhammadin al-Muntaqaa xafidahu llaahu ta'aalaa malaamiha haazaa as-sarxi al-ilmi allazii atlaqa alayhi isma mujamma ash-sheex Ahmad al-Xadiim lit-tarbiyati wa takwin wa ja'ala shi'aarahu tilka ath-thulaasiyatu al-qadiimiyya al-ilmu an-naafi'u wal-amalu as-saalihu wal-adabu al-mardii wa araada subhaanahu wa taala an yakuna muassasatan mutakaamilatan tajmacu bayna altarbiyati wa taclimi wa takwin yatasanna li tifli an yabda'a fiha masiratahu aldirasiya min alqaacidati ila alqimma li taclimi alqur'ani ila qimmati taclimi aljaamici muassasatan mabniyatan ala ususin qawiyatin min altarbiyati alislamiya tamassu jamiica jamiica majaalaati almacrifiyati aldaruriyati والحاجية في الحياة الروحية والمادية للإنسان وتنهض بدور قيادي في المجالات الآتية التكوين المعني الجامع بين التعليم الإسلامي الأصيل والتعليم الأكاديمي المعاصر البحث العلمي في خدمة التنمية الوطنية والإقليمية والعالمية نشر الخيم الإسلامية والرسالة التجديدية السلمية لسيدي الشيخ أحمد الخديم رضي الله عنه وللمجمع مكونات عديدة هي معهد قرآني كبير مجالس تعليمية يعني المحضرة جامعة تضم حاليا ثلاث كليات ومعاهد عالية وهي كلية الدراسات الإسلامية والعربية وكلية الزراعة وتقنيات التغذية wa kulliyati technologia wal xeraf wa mahadi luxaati wa tarjama wa tibaa wal mahadi al aali lil ulumi wal mihani saxiya wa mahadu tasawuf wa dirasati al muridiya idaaratun aammatun mukallafatun bi sahri alimi al madrasi fi markasun li takwini al mihani maktabatun aammatun kabira maktabatun xaasa bi turaasi cheikh ahmad al xadim radiallahu taala anhu këru xasida yi wal mujammaa يقوم على أسس من القيم الرفيعة التي من أبرزها الجمع بين العلم والعمل والأدب والإخلاص والانفتاح والأمانة والخدمة وهي قيم مستمدة من تعاليم الإسلام وفق منهج مولانا الشيخ أحمد الخديم رضي الله تعالى عنه أيها الحضور الكرام لا شك أن المجتمع الإسلامي والوطني والإنساني في حاجة ماسة إلى مثل هذه المؤسسات التي تسهم بالتأكيد في التخفيف من وطأة المشك... من وطأة المشكلات التي يعانيها المجتمعات البشرية من قبل الجهل والبطالة والانحلاه الخلقي كما تساهم في تكوين كفاءات وخبراء قادرين على النهوض بالبلاد مسهمين في تقدمه وازدهاره بمعارفهم القوية وسلوكاتهم الإيجابية المستقيمة في عصر يتسم بتعقيد وسرعة تطور ولم تكن الدولة السنغالية غافلة عن هذه الحقيقة فقد أدركت أهمية هذه المؤسسة والدور التي يمكن أن تنهض به وأسهمت بأمر من الرئيس الجمهورية السيد مكي سال ببناء مركز التكوين المهني داخل المجمع وتحويل عدد من الأساتذة إلى المجمع ومع ذلك تحتاج المؤسسة نظرا للمهام الكبيرة المنوطة عليها إلى مزيد من إلى مزيد من دعم الدولة لمشاريعها التمويلية الواقفية الوقفية التي ستطرح أيها الحضور الكريم اسمحوا لي أن أشيد هنا shaahidan wa munawwihan bi anna al muridina kullun xasba istitaati istajaabo li daawati fadilati cheikh mohamadin il muntaqa istijabatan munqatiati nadir shuyuxan wa ulamaa wa xubaraa wa akademiyina wa rijala acmalin wa ummalan wa xirafiyin wa ashamoo ishaaman kabiran fi tarjamati rahbati cheikh wa amrihi almuakkadi ila waaqicin malmuus wasmahu li aydan an arfaxa asma ayaati shukri wal irfan ila samahati mawlana acheikh mahamadin almuntaqa xafidahu llahu taala alladi sharafana bi taklifina xamla hadihi alamanati alkabira walam yazal xafidahu llahu taala xayra awnin lana yuaasiruna bi tasdiidihi wa tarshiidihi wa tashiili kulli amrin yaxtaaju ilayhi almashruucu mahma kaanat tabiatu wa yusciduni qabla an axtima أن ألفت نظر جميع المريدين إلى أن المهمة الكبرى بمقتضى تلك الهمة العالية لهذا الشيخ ستبدأ اليوم وهي مهمة تيسير هذه المؤسسة لتؤدي رسالتها باستمرار على أكمل وجه بكل ما يتطلبه التيسير والتدبير من موارد مالية وتقنية ثابتة إلى جانب إكمال المرافق المتبقية وهي مهمة تتطلب منا جميعا شهد هممنا ومضاعفة جهودنا لكي نرفع معا بفضل الله تعالى وعونه ثم ببركة شيخنا أحمد الخديم رضي الله عنه جميع التحديات الماثلة والمتوقعة لعلنا نحظى بهذه الخدمة الجليلة خير المنقطعة الأجر والثواب إن شاء الله تعالى وفي الختام وفي ختام هذه الكلمة نرفع أيدي التضرع والابتهال إلى المولى عز وجل سائلين إياه أن يرضى عن شيخنا عبد الله وخديم رسوله صلى الله عليه وسلم وعن جميع أسلافنا ويجاسيهم عنا خير الجزاء ويحفظ شيخنا الخليفة ويمده بالسعة والعافية حتى يؤدي جميع مهماته في خدمة الإسلام والمسلمين ويحفظ بلدنا وينشر, وينشر فيها الأمن